Damas là si le tirage main derrière il était très très éloigné d'ailleurs s'il a les mêmes parrainages que El Azidouf, Diouf qui septième il serait éliminé ce serait grave qu'un pouvoir sortant ne puisse pas avoir de candidat à cause du tirage au sort et des doublons. C'est pourquoi ni Karim Messawad, ni Amadouba, ni Ousmane Sonko, ni Habib Sy n'ont osé aller vers le palais de la citoyenne. n'y a pas d'eau. parce que bii dafa nerf. parce qu'au dialogue ils se sont entendus pour dire que si vous avez 13 députés vous allez convenir. mais ça c'est un arrangement ça c'est honteux c'est injuste c'est de l'opportunisme de droit les candidats ne sont pas égaux devant la loi. Pour l'option des députés, il n'y a pas de tirage au sort. Pour l'option des élus locaux, il n'y a pas de tirage au sort. Pour la troisième option, qui est la plus difficile, vous allez chercher 44 300 par Il y a après un tirage au sort pour éliminer des gens à cause des doublons dont les candidats ne sont pas responsables xamuloo kan moo pare sa c'est un risque et vous venez ah jàmbaar yow quelqu'un kii am na li nga xam ah, bokkatuloo alors que amul ci député yi amul ci élus locaux yi amul amul tirage au sort est-ce que y a pas une inégalité des candidats devant la loi dans le même système de parrainage il y a injustice il y a inégalité l'option des députés il n'y a pas de tirage au sort l'option des élus locaux il n'y a pas de tirage au sort mais l'option la plus difficile des, des, des, des citoyens, il y a tirage au sort. Malgré la recherche de 44 300 dans le pays. Ce qui est plus difficile que les députés quand même. Et dans cette région minimum, ce qu'on ne demande pas aux députés. À l'option des députés, on ne demande pas de région. L'option des élus locaux, on ne demande pas cette région. Mais l'option des parrainages citoyens,

pour bokk ci élection yi système bi dof système bu bu bu njaaxum taxaw naan boo xam ne amul ci député yi amul ci élèves yi nga ne yéen ñi wute woon ba sonn bokk nga yàgg Lamine Ndiaye am na yu ngeen nuróole waaw lu ma ci mën mu ngi mel ni on fait le baccalauréat le correcteur le le le l'enseignant qui est là pour corriger les copies il est là un étudiant un élève vient candidat au bac, il dépose sa copie, l'enseignant corrige, c'est bon. Ce que l'on demande, par exemple par rapport à un problème posé, la réponse est bonne. Vous passez. Heureux élève vient. On, corrige sa copie, ah, vous avez trouvé. Mais celui, quelqu'un était là avant vous, j'ai corrigé. Modou vient sa copie, vraiment, il a donné la, bonne réponse. Donc, il passe. Il obtient le bac. Toi, tu as donné la bonne réponse, mais comme tu viens après Modou Dien, toi, Ibrahim tu es recalé. Ah, vous avez trouvé ce qu'on vous a demandé dama bëgg mu leer ci bopp nit ñi yëfu dof ñu def dañ la laaj dara nga trouvé ko ñu jox sa baccalauréat nous ñëw trouvé ñu ne ko ah ki mu ñëk a corrigé trouvé na ko kon yow do loolu kan moo ko mën nangu yéen Sénégalais yi yéen ma jël yéen noonu la ñu recalé doublon yi moom noonu la dem te moo ñoree bañ dee liñ la laaj ci examen bi am nga ko ba ëppal ko ñu ne am nga ko de waaye bi ñu corrigé am na ku njëkk a ñëw am li nga am ci li ñu laaj lañ ko laaj ñu ne yow tourné nga li ñu laaj. mais am na ku la jiitu trouvé na ko kon moom am licence yow doo am licence wala mooy am master yow doo am master wala moom am baccalauréat yow doo am baccalauréat mais gars yi dof ñëpp nekk dof réew mi yëpp dof dof def dof dof la folie s'est emparée de ce pays on a perdu la raison subitement on nous a maraboutés. Je crois que le pays a été marabouté. Les gens me regardent comme si ce que je dis là était extraordinaire. C'est tellement simple à comprendre pour toi. Vous vous demandez 1000 points pour avoir le bac. Vous avez 1000 points. On dit, mais quelqu'un vous a demandé, il a eu 1000 points pour vous. Mais donc, vous n'aurez pas le bac. <laughs> mais il y a des il y a liñ la laaj am nga ko nga war a am diplôme bi nga ne non kañ la ko corriger avant yow trouvé na kon yow doo jàll. ñëpp xulli seen bët du di jox ci loolu dara loolu koo mën nangu yëfu dof nañ ko mën a nangoo yëfu dof nañ ko mën a nangoo yëfu dof nañ ko mën a nangoo moo dof ñeneen dof ñu ànd yëfu dof. waru woon bokk élection yi ni demee kenn jur war sax na bokk élection yi élection dof ku ci bokk da ngay nekk dof nooy fait conséquent bu fekkoon dañoo dem wóor a amuju dara ñu ne ah vraiment ñun daal nekkee ñun Sénégal yi bëgguñu ñu nekkee ñun ministre am parrainage bi ñu laaj ñun daal bu yeboo toog boo demee wari amuloo doo toog waaye ñu waay waaye ndeysaan boo waree am ba am lu ëpp dina laaj est-ce que war ngaa toog gars yi da ngeen ma wuyu laaj la ñeent fukki junni ak ñeent te duggee juróom fukki junni ak juróom ak juróomi téeméer ak juróom ñaan fukk cinquante cinq mille cinq cent soixante dix dina la huit mille cinq cent doublon huit mille bi muy bàyyi loon rek parce que après quarante mille la ñu laaj ci premier tour bi ko ci am quarante huit mille jàll nañ ñu ne ñu 6000 fii identité doon identifié sur le fichier électoral xam ne lii ay caaxaan la loolu laa bëggoon mu leer ci boppu sénégalais yi bala ñuy wër di wax am ñu fi nekk di fenn ak di yàq der te duma seen morom billahi ñii ñuy wax fii ñuy dem bu ñu demoon bu dugaleen ndax fi ma jaar war naa ne di new teg na ko fi ma jaar lycée université gouvernement assemblée nationale l'homme du 23 juin li ma liggéey ci réew mi kenn ci ñoom jaarul man dama am jaajaar yeewuma rek am ay milliards rek ni eh ay baadoo la fi nekk dara jëlee seen kaw ay faqir la fi nekk amuñu lu lekk il faut nekk président xeeb naa xeeb naa leen maa leen maa leen gën ku yeewu am milliards yi maa leen gën quoi yéen daal ay xar ngeen ay ginaar ngeen maa leen moom mais loolu mënul nekk de wala yeewu. ni président moo la wala yow gën ci gën ci yow fi def université assemblée nationale gouvernement sur le terrain président day am jaar-jaar réew day wane boppam avant muy laaj réew dañ lay xam avant ngay laaj sénégalais yi fenn amuloo loo wone yéew rek man daal rafet naa am naa costume am naa Mercedes am naa jeeg bu rafet am naa compte bancaire jox leen ma réew mi loolu boo yore la loolu tax nit ñi xam la lu ñu la xamee xeex wala nalaw wala sàcc il faut ñu ne lii tax ñu tànn ko def ko suñu président fu ma dem ñu ne yaa war a président ndax bu ñëpp dawee yaa fi nekkoon dañuy taal dëkk bi yow lañu gis ti tàppale ko du yore Sénégal yambar war a yore Sénégal ba ñuy taal dëkk bi yow kenn cundam yaa tax a jàlloog bandi yi bay taal sa kër taalu kër keneen kii jàlloog bandi yi ba bànd yi complot pour taal këram xam nañ ko ki doon duma bandi yi di leen duma di leen duma bañ da ko yàq lu mel ne xemee da ko dalee Canada da ko dalee Amérique seen bande yooyu di nekk net bi saaga nit ñi da ko dalee kooku nekk Paris ak seen groupe bi nekk fi Sénégal suba angoon ñu ngay saaga internet bi di ma fenal di ma sosal foog damay dellu ginnaaw mukk bay dóor rek jàlloog ñoom rek ñu ne mu ñu taalee këram mu daw ma gën a jàlloog ñoom rek su réew bi di ko jox tappeet ndax léegi jihadisme salafisme reykati nit ñi ma ni salafiste yi rebelle yi reykati nit ñi ñoo bëri ci Afrique surtout suñu zone bi ceinture de feu ku ne amul fit amuloo xam-xam amuloo jaar-jaar mënuloo yore sunu réew ne répondez pas à la provocation dafa affaire dafa neex képp koo xam ni voyu nga li may wax dina neex man maay maay faj band yi ak wayu yi déglu leen fajkat yi band yi mooy wax ak yéen calmez-vous je suis l'ennemi juré l'ennemi juré des ennemis du Sénégal l'ennemi juré des salafistes des rebelles des bandits des tueurs des voyous des trafiquants de drogue des trafiquants de toutes sortes l'homme du 23 juin est là <laughs> L'homme courageux est là, vous le connaissez. Le député du peuple est là, vous le connaissez. réew de votre toll foo gaz bii di pétrole bii di ñëw bu leen door see calme bu toog leen toog leen toog leen bu leen ko topp toog leen toog leen toog police ole police la police police police bi la police d'or. calmez-vous calmez-vous on oh, les police calmez-vous toog calmez-vous na ngeen jàpp la prison calmez-vous Béranger calmez-vous gars calmez-vous il y a des infiltrés on nous a infiltrés les gars on nous a infiltrés calmez-vous toog leen toog personne Personne ne peut nous perturber. Calmez-vous. On va les envoyer à la police tout de suite. Calmez-vous. La police arrive. Calmez-vous. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Les bandits sont arrêtés immédiatement. Calmez-vous. Je les comprends. Ils, sont, infiltrés. Mais calmez-vous. On va continuer. Les meilleurs du bandits. Les meilleurs du voyous. Les meilleurs Fi c'est pas fini c'est pas fini Comment bu ma mon yàpp ku ma ku ma refusé ma Sénégalais c'est fini ko dem je travaille avec les Sénégalais dama ce ceux qui nous ont infiltrés on n'a qu'à les arrêter Béranger Béranger arrêtez-moi ces gens-là Béranger Pape Béranger arrêtez-moi ces gens-là wax léegi maa ngi leen di ñaan ngeen toog xam ni kenn mënuñoo infiltré ku fi ñëw pour yàq réew mi du ma jël ci nafaate réew mi du ma jël ci jaay doole nit ñi ci moomu leen da leen di nekk di woteel la mënu leen di jaay dara tous kenn du fee jaay dara kenn kenn moomu fi kenn kenn mënu fi ñëw di jaay doole kenn ceci étant dit ñu dégg loolu ñu ñun parce que ñu duñu ay tappe ñun duñu ay tappe ñun duñu ay yambar ñun bu ñu tooñ mu duma la que ça soit clair. C'est le candidat de la sécurité. Ce n'est pas pour rien que je m'étais proclamé, candidat de la sécurité. pour je Maintenant, on revient au parrainage et à l'élection. Je n'ai pas fait de recours pour ne pas être ridicule. J'ai dit qu'on n'aurait pas dû accepter le tirage au sort. Nous l'avons accepté. C'est un tirage au sort. Injuste et inacceptable. Pourquoi maintenant faire de recours Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mani, boo nangoo sag De dafay de nous ñu naan dañuy def tirage ku njëkk a bu dee am na li nga am yow boo ñëwee ñu dàq la loolu bañ ko nangu wala xam ni dem ay ay recours defu taf la booy war a bokk élection yi ñuy wax ñu ne dañuy seeti Macky Sall lu ñu doyee Macky Sall mais ñi waxoon ne Macky Sall daa dugal loxoom ci justice bi Macky Sall mooy manipulé justice ñooy dem di Macky Sall waxal ak conseil constitutionnel bi nga xam ne mooy justice. kay Sénégalais kañ la leen liggéey ba di dox sama gars yi demoon seeti Macky Sall dañoo daal complètement bi ne l'exécutif da wax dëgg le judiciaire na Macky dugal loxoom ci justice li conseil constitutionnel atte na wax ak ñoom xool ndax ñoom ñu bokkaat man mii moom ñoom ñëpp ñoom ñëpp man man ñoom ñoom ñëpp ak ñi gañe ñëpp tous les canaux de du ma ci moroom kenn kenn amul aam bi maa leen mën ñoom ñëpp macha allah ndax li naan ci par exemple sur le terrain amuñu ko image yi ma mën a wane ndeysaan bu mënu ko wane métti na ma lool ndax Cameroun dañu défaillant Cameroun dañu défaillant xaw ma ndax xaw ma complot moom kenn du xam li ma leen wane tey ngeen gis nga seen bët wala ngeen jënd ko.

du métti la métti benn nit lañ gis bu taxaw rek le général El Hadji Diouf devant son du peuple ನಂಗೆ ಕೀ ಮೂಲ ಕಂದ ಐಕ್ ಲೇಗ ಕಮಲ್ ಕೃಸ್ que ಐಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕೀ ಮೂಲ Lomé nekk ministre Amadou Ba mi lay impôt domaine 2006 ba 2012 2013